jërëjëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyu mbokk yi ñu amaan mbégte comme niñ ko defewoon ci Colobane tey noonu lañ ko defee fii Parcelles Assainies open presse su Guiro Seras macha allah waa dëkk bi yëpp génn waa parcelle jàppale ko gis ngeen bëri boo limee da ngay juum gis ngeen bëri parcelle yëpp génn seen grand jos mi ngi nii taxaw jiite fi li nga xamante bi nii macha allah mooy écrit bi nga gis ndaw yeeg mag ñi ñëpp génn. mu dégmal tàkkusaan bu rëy muy le 29 mai fële ca stadium Iba Mar Diop digganteem ak ki nga xam ne mooy tonnerre numéro 2. jële woon nañ tonnerre nag mu yëkkate ay kàddu jëmale ko ci Guiro Seras te yaakaar naa ne am na droit de réponse du moins. 15 de Ndiaye production nag la ñu wax ci biir 15 ans yi promoteur bi pare na ci ay innovation kon yaakaar naa bëri yi dinañ xool nañ lan war a innové fële ca stade Iba Mar Diop ba promoteur bi gis ci boppam. dañuy nuyu Guiro Seras bàyyi ko mu nuyoo mbokk internet di ñu dugg ci waxtaan wi Baye Fall bi ñu ngi lay siyaare bu baax a baax di la bëggee. waaw moo daan tam maa ngi bisimilah bisimilah inna waa lillah di wax jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba di wax di sant waa di sant Ousmane waa Daaru Salaam ñëpp ñu may ñaanal waa war saato waa li Doofa waa Linguère di yor ñëpp sama nijaay ba doon door borom Bello waaw di sant Bassar borom Njaroñ di sant waa Joal Fadiouth xam nga di sant waa Samba waa Fadial waa Diofior xam waa Djilor Djidiack ñëpp maa leen di sant bu baax di sant sama papa Iri Idrissa Ndiaye borom Fatick borom Ndiaye Ndiaye maa leen sant di sant suñu waa bu dëkk waa bundu xam nga di wax kala biyo mbime mbimami tan mbiɗa ñaguima duwaw no fewi mino ɓinguel moon miñagel moon mbiɗa ñaagi on génn gis mbëri parcelle yëpp génn gis booy yëpp génn jàppale la yëg-yëg bi lan la maa koy ñaanal bu baax a baax xamul nga moom sama tout tànk la ku si mel ni tamit Moussa Balla Gaye sunu grand duñ ko Moussa Faté waaw parce doon jàpp suñu combat ak Boy di sama doomu nday xam sama combat bi mooy tombé ak ñaanami incha allah rabbi ak tamit Zeng xam nga ak ñëpp rek maa leen di ñaanal. waaw yàlla xaaral leen firdawsi. keroog sa adversaire def na open press kàddu yi mu yëkkati jëmale ko ci yow nan nga ko gisee bala ñoo dugg ci question yi comme seetaan waaw xaw naa ci seetaan tuuti mais lim doon wax dégluwuma ko. déggoo ko dégg naa li Koña doo wax ak ñoom Mor Kankal. ak ñoom non dégluwuma ko. non Ndiaye ñoom ñëpp déglu naa leen. Mhm. mais ñoom tamit xam nañ xam ne ñoo ngi ci rang bi. Mhm. ñoom ñëpp. ñoom nee nañ Bawol lañ dëkk. Ah dinañ xam ne sama maam kër Ibra Yacine la dëkk. Ah. man taalibe maam Saliou Fall borom Daaru Xafoor. woo gaay ñu ne da nga dugg Bawol daan fa ki nga xamante bi nii yaakaar naa ne am na fum leen toll muy Nokia nee na nag Tonnerre 2000. Bawol man comme ni ma ko waxee sama maam kër Ibra Yacine la dëkk xam nga di sant waa kër Ibra Yacine waa Bambey ak waa Ndindi ak Gaawaan ñoom gënuñu ma dëkk Bawol balaa ñu si xam dara làmb ji jàll waaw maa ngi sant ñëpp ñu may ñaanal. amul lu may wax si affaire bëréew maag bawol bawol yi tonnerre deux laay bawol laay laay bëreel pas bawol bawol yi ah, waaw man waaw baax na instant bi maa ngi jéegoolu sax comme wax ji nii sax daf ñuy xaw a sonal ah, xam nga waaj nañ li ñuy waaj ku nekk ay waaj nga say mbokk dañuy ñaan yàlla may ñu fekkee ak tal ba bés ba incha allahu rabi di ñaan yàlla suturaal ñu may ñu ndam bu baax am nañ si yaqin nag bu baax a baax nee tardement lamb moo leen boole ku bëre Youssou Ndour ba Balla Gaye bëree ñoom laay goote moustique bëre ndaanaan yu bëri nee na tardement lamb moo leen boole waaw loolu moom la concerné mhm. nul ne peut s'échapper à son destin ku nekk li la war a dal lekk di nga ko di lay dal waaw moom a loolu noonu tardement la ko jàppee mais li gën si moom la waaw man loolu laa ko jàppee dañoo war a daje dañoo war a daje làmb la kese. ay ca gars yi ku am question rek mën naa ñëw sa premier grand combat nanga nga koy waajee tombeek promoteur bi di fe feete 15 ans ci biir làmb. waaw di si sant yàlla bu baax di sant yàlla bu baax di sant tamit Fallou Ndiaye xam nga di ko nuyu au passage parce que moom sequñu làmb moom sama sëriñ la. sama lépp la xam nit bu amee yéene si yow da koy xam moom daa am yéene si man waaw maa ngi koy ñaanal bu baax. waaw première grand combat bi nag moom ak premier combat mbapat ñoo yow man loolu fere jeewu ma en tout daal combat la am combat la am. nee na nag mënoo xeex ak moom xeex moom xalaatoo ko sax te doo di ko xalaat a xeex ak moom. waaw incha allahu rabbi man bëre naa treize combat ku ma mës a bëreel même boo ma dooree tamit di nga faju ji Mhm. man aw ma problème boobu ay day xeex wala du xeex yàlla nañ si yàlla yóbbu ak jàmm instant li ñuy wax nii sax daf ñuy sonal. Mhm. yàlla xam na loolu. mënta ñàkk nag combat xale la il fallait que ñu jaay ko nee na top 5 da nga cee dal rek dugal fa sa adversaire dernier euh, combat bi nga dugg mais nee na top 5 mooy borom. waaw loolu du problème. man avant mooy bëre arène laa commencé dugg top 5 man laa mu tukulóor laa doon bëre. ñoom dañ leen utal yoon man kenn musuma utal yoon premier combat laa commencé ba grand combat man kenn utaluma yoon noonu la demee. maa lay nuyu Guiro Seras danoo gis adversaire bi nga jël dafa jóge ci trois défaites yow nga dugg yow nga dugg Bawol moom mu duggoon parcelle daan fi Boy Diop lan moo waral nga jël euh, Tonnerre numéro 2 grand combat bi la wala défaite yi la wala lan la. waaw comme ni ma la ko waxee. boo joob suñu grand la mais man bëreluma kenn revanche man maag tonnerre do ñooy bëre bëreewu maag waa Bawol ma waxaat pour ñu dégg ko te bëreewu ma tamit revanche comprendre nga man tamit bëre xooluma ay nokia laa jógee bëreel ñoom ñaar ñooy ànd man sama fou xam nga la moo ma concerné moo jël sama avance ma jël avance am ku nekk am ngoru jël avance am sa avance moroom xam nga nañ xam ne ay gor la ñu appliqué li ñu wax du nee na kenn musul xeex ak moom bay arbitre siffle ñi ma ngaa dagg jéng yi. dama ne dafa jóge ci defet jóge ci année blanche lan moo tax nga ko grand combat wala. Fallou Ndiaye bu ko defoon premier combat damay bëre wala terrain bi nekk si côté BCEAO woo banque bi man aw ma problème boobu. man aw ma problème ay grand combat ay premier combat rek ku nekk sa combat grand combat la parce que li nga am yëpp nga siy def. waa nee na moo la dàq bëri. waaw si yàlla yóbbu ak jàmm. yàlla nañ si yàlla yóbbu ak jàmm incha allahu rabi. di ñaan yàlla suturaal ñu moo ma dàq bëri moo ma dàq xeex. ba bés ba incha allah. macha xam na ne dëkk bi neexul bàmba looy lancé sa euh, sa supporters yi ci non violence ak jour ba côté mobilisation fan nga ci toll. parce que tamit xale yi ciy bëre pare nañ pour wone seen bopp. waaw di profité si occasion bi. di wax ni xam nga comme fi dëkk bi toll nii. ñun di ko wax samay supporters ñëpp chaque jour dama leen koy wax man woowuma kenn si violence xam bu kenn xuloo bu kenn xeex man maay bëree man maay dugg si géew bi ñoom mënuñu def dara loo xamante ni rek day tax ma waa ji ñëw tëdd comme fu nga waaw léegi man maay bëree quoi ku si nekk na sangu ba set sol sa yére bu kenn saaga kuñ saaga sax xam nga ne leen maa ngi jégalu yàlla yóbbu ñu seeg jàmm incha allah. kon mobilisation ñaata kaar nga fa yéene yóbbu stade Iba wax dëgg yàlla comme man moom wax dëgg yàlla aw ma problème boobu ama sëñ Fallou nee na. ay njëmbat njëmbat ñàkk wërsëg weesul nga xam li nga am weer bu man xaw ma ñaata kaar laa yóbbu. ay njëmbat engrais nit ñi mobilisation. dañu gis sa dernier combat nga andi mobilisation bu takku est-ce que mën nañoo xaar nga tripler lool. waaw bu soobee yàlla ñun yàlla dafa dogal ni xam nga ñun fii lañ juddoo fii lañ dëkk fii lañ màggee ñi ñu nekkal fii ñëpp amul kenn koo xamante ni xam nga làmb moo ñu boole ñun ñii ñëpp ñoo bokk ko ñoo dëkk ñu ngi fi gis ñëpp. làmb boolewuñu ñoo juddoondoo yaroondoo. Mhm. wol mbokk yi wol mbokk yi. waa di si woo ku mel ni Lat bala ngaa woote Ousseyn. dañoo gis ko question boobu noonu daa mel dañ ko posé waat rek moo tax ma ne la ñàkk adversaire wala amul ñàkk adversaire nañ bàyyi ba bés ba incha rabbi du nee kenn musul xeex ak moom. waaw baax nañ bàyyi ba bés ba moo daan nee naa la man du ma yoonu kenn man du ma déggoo ma lu may xel ñaar sa moroomu góor. amoo lu may xel ñaar. xam nga li muy représenté bien sûr que oui xam naa ko. déggoo ma de combat bu nit sa premier combat sax dafa am lu muy représenté sa carrière man amoo problème yooyu. Hmm. waat xam di woowaat ku si mel ni. non non non man amoo problème boobu. grande fee nu ñu koy waxatee. Ah, Medina Iba Mar bu dee moom mooy borom dina leer. man Zeng laaroon doon àndal surtout maam Yes la. Medina sunu Medina la de. kan si. waay toneem aw lu may wax ak moom. yàlla xam na loolu. aw ma benn boo xamante ni rek war naa ko wax tonnerre. su ma ko wax dama koy tooñ. amul lu ma koy wax wax dëgg yàlla. wa li waaw léegi xam di sant ku mel ni Lat Diop di ko woowaat si combat bu baax a baax di ko wax xam nga mu jëndal ñu ko jàpp si te yàlla tax jëndal ñu ticket yi ak waa parcelle ñëpp dóor yow waxal jëndal ñu si ticket yi. di sant xam nga waa parcelle waa parcelle ñëp di leen woo si combat bi di leen wax lii grand combat la nañ ñëw jëndal xale yi ticket xam di sant waa Joal bu baax a baax di sant Pa Sarr waa Cambérène 1 Tali Ndiaga Mbaye di sant waa Cambérène 2 Nations Unies golfo soxna Aïda Saliou maa ngi koy woo si combat bu baax gis nañ nu mu taxawee si combat ñoo ngi koy ñaanal xam nga Serigne Touba taxaw ko doole seegu nan nga fas accompagner sa rakk andi ko stade gars maa ngi leen di sant ñëpp di julli seen am salaahu salaam juróo dafa am yar am teggin nit sans façon la kii kii xale la boo xamante ne taxaw na moom fu nekk waaw sama ñëwu tey bii ah ñëw la booy bii nañu bàyyi di teg ay affaire bool bool ay affaire yi booy bi bool bool bu am ay ñaas la <laughs> la ah alpulaar waa fuuta ñëpp ay mbokkam lañ am na ay maam bool bool dafa am ay ñaas mais bool bool la tamit yaa ngi dégg kenn ëpplu ko dara booy Dakar la fii la dëkk ay Iba Maar fii Demba Diop yooyu taxawul ñu lu ñu bëgg dañ koy jëli kii gëm nañ ko wóolu nañ ko da day daan incha allah ay nii tey taxawul ñun gëmuñu yooyu. gëmuñu yooyu laa wax. gëmuñu loolu. gëmuñu loolu. gëmuñu loolu. lan moo ko taaraloon ba ba moom mënul yéeg ba booy fekk ko foofu ba booy fekk da koy wàcce waat amul yéeg de amul yéeg kii dañ ko woowu te mborodi mborodi mborodi mborodi Maodo mborodi Maodo maa indi jërëjëf jërëjëf day wax ci li grand waaw Zof xam nga moom dañ koy sant di ko gërëm xam nga di rafetlu taxawaayam bu baax ama lii tamit nit am bësëm nit amul lu dul bësam ka gaay bu xewlee mu ñëw ama loolu dafa rafet dañ siy kontaan bu baax a baax di ko ñaanal li mu bëgg rek yàlla defal ko ama di tamit jégal waa koñ bi ama di leen sant bu baax di leen jégalu nag si dérangement bi di leen wax ñu ñaanal ma seen doom xam maa ngi sant maire koñ bi ñëpp sama booy saye bi waaw maa leen sant waaw foore bi santuma leen samay fils lañ